Euh, si turu li nga xamné que modi état bu Sénégal jàppale ni tam da koy daal yaatu sinu gëna yaatu gën ministère des finances et du budget bu Sénégal euh, gëna na nak ni ay détails exactement si euh, bonne bi nga xamné tam euh toll na si 750 millions. Euh, suñu ay koppar bi nga xam depuis le 3 juin 2024 euh, alors euh, loolu nag mu daal di koy si placement yenn internationaux. Euh, bi nga xam ni itam da ko daal di effectué ni am na si intérêt bu daal di toll ñoom euh, sept virgule soixante quinze pour euh, ans la nga ko war di fay exactement nga pour daal di war a optimiser dette bi nga xamni ni itam jamono jii da nga ko daal di convertir euh suñ ko jëlee si eurobond yóbbu ko si euro mu daal di toll si 6,47% face à l'engouement euh, des investisseurs, une tranche additionnelle de 250, euh, millions de dollars a été émise le 4 juin 2024 exactement. Alors, quatre ki le ministre du budget d'Abdiap, le euh, succès là alors dans le sens et que mu jamono ji ñu ngi si bi euh, pour daal di gën a dugal si exactement alors euh, Serigne ñëwaat exactement si li nga comme nekk ni di état du Sénégal lépp na de da li comme xam nekk et que pourtant le ministre du budget jàpp na succès leen si daal di parce que suñu xool euh, investisseurs yi euh, yok nañ ko sax ba 250 millions de dollars bi nga xamni Tam, itam nañ ko niki le 4 juin 2024. waaw euh, bon xam nga lolu mi ngi commencer di agiter l'espace public ak ciow lu bëree bëri parce que souvent moy li nga wax rek ay vaar yu gars di génne waat nan diw nangam waxoon na ci eurobond yi. nangam et cetera tout ça. Mm, mm, mm. mais man man pour man loolu moy li ma wax rek man je ne me je ne me je ne me du ma considéré wu ci ay yoy yooyu. me considérer wu. Les choses toujours dama analyser par rapport au contexte par hmm. rapport aux faits aujourd'hui le gouvernement sénégalais a besoin de l'argent parce qu'il y a euh, véritablement un problème de trésorerie ils ont besoin véritablement de l'argent pour financer euh, le développement tu as vu Tu connais que Sénégal Le Sénégal, fi doon Sénégal bu metti la Fini de jëlee nguur contexte bu difficile la crise yi impact économique yi mu financier yi mu jur gouvernement bo xamanteni tay lam fi fekk ci temps taux d'endettement c'est tellement élevé Donc, si tay dem dépasser la norme communautaire mi nga xamanteni dafa autour de 70%. mais cela n'empêche également de de de de de faire également des de engagement par rapport la dette parce que vous le ministre des finances a annoncé les couleurs ci julli Korité gi ñu génn annoncé les couleurs ne woon ni ba moytul dañ dañ dem ci situation bu difficile. Hmm. parce que boobu conjoncture la doon waxal ak contexte mondial bi. tu as vu suñu gouvernement warloo na ko ci mom chaque <coughs> mois mu fay salaire fay li nga xamanteni moy dette hmm. yi. 104 milliards. Hmm. fay lu beure beure beuri assurer les dépenses nga xamanteni ni mënul taxaw te tay ñu ngi wax il y a des défis qui, qui, qui, tay yu taxaw seen wet. muy cherté de la vie l'employabilité des jeunes souveraineté alimentaire. tata yoy yeb def yoy beug nañ ko bëgg nañ met en face def yoy yeb est-ce que tay la xaalis bi ñu soxla pour financer loolu mi ngi fi mi hmm. ngi fi nekku fi fallu hmm. hmm. en toute sincérité parce que le président Macky Sall ñepp xam nañ ni bi mi départ avant muy départ il a tellement saboté ma salarial bi fam ko jëlé ak fam ko yob yob ken xamul num toll tay jël ay nit yobu len di len fay te liggéeyuñ ken xamul fu ñu ne yokk salaire lepp nga bëgg a yow sa sa successeur na nga ko mettre ci situation boo xamante ni situation bu jafe lay doon loolu tey moo poussé gars yi dem contracter ay eurobond. Hmm. tu as vu jàpp naa ni euh, li ëpp solo mooy xaalis bi ñu def ko vers des investissements euh, productifs yu am solo yoo xamante ne ñu permettre ñu mën a am une manne financière boo xam ne dinañ mën a rembourser suñu bor. Hmm. loolu moo parce que bor kenn mënu ko bañ bor ak état ñoo ànd. même les pays les plus puissants dañu contracter des dettes. Hmm. Mais l'essentiel, c'est que ces dettes-là soient réinvesties dans des investissements productifs, des investissements qui euh, pourront tenir tête véritablement les dettes alors donc nous exactement par rapport à Klinar en tout cas le ministre du budget des finances Yapnani, na euh, hein, euh, succès total la euh, alors donc les résultats obtenus notamment en termes de délai d'exécution de volume de ressources et de conditions financières confirment le statut de l'État du Sénégal comme émetteur de référence démontrant la qualité et la crédibilité

mënu sey ñew mais Cheikh batay mi insister et que mi taxaw fi mu taxaw le fait que ñu bàyyi ko mu dem donc amna lu mu tey peut être. wa peut être rek lañ mëna wax. Hmm. parce que mën nañ ko woowaat sax suba itam. ok dafa am lo xamanteni appréciation juge bi la. Hmm. do ci mëna dem au au fond. comme moom preuve yi mu yor itam man gisuma ko yow itam gisoko hmm. euh jaa nañ japp ci bonne foi rek. ne yor amna peut être bi amna lu mu yor. Okay. mais mën nañ ko bàyyi mu dem. bu fekkee ni jarul jarul ñu fay téye wala nangam ak nangam dañ koy bàyyi mu dem mais mën nañ ko woowaat itam. mais bàyyi bi mu dem cela ne fa pas dire que am na ay preuve ci li muy wax itam. Mm. waaw loolu juge bee koy apprécier. donc bàyyi bi bu mu ñu jox perception yi dafa am ay preuve yu mu yor. Mm. non. alors c'est clair donc mi ngi noonu exactement euh, Serigne jaajëfal nañ neul bu baax a baax. maa ngi lay fay faaw jaajëfal bu baax tàggatoo téléspectateurs yi. waaw di len di len di leen jaajëfal rek di mo sa doon rendez vous inshallah lundi prochain. yalla allah yal na ci amin amin alors ñu lay jaajëfal bu baax a baax baax Serigne na ah, donc te mënoon ànd tay ci waxtan wi. Mhm. amna solo bu baax a baax baax ponk yi nga xamni tam développer développé nañ ko fi mbokk téléspectateurs yi sant ngërëm ñenn len waaye tam ñeel képp ki nga xamni tam itam nga ci euh, fi fii daal di wóor mëna a yemm waxtane tay tey bëri woon na lool bokk na ci li nga xam ko moo di la venue de Juan Branco ak xam nekk mu di maître bam Cissé way tam ñëwaat ni itam ci dossier aji Sarr bi nga xam ne itam c'est la demande générale daal di mëna mën a way tam itam yenn si ay dossiers yi nga xam ne itam jamono transmettre nañ ko le procureur euh, foofu ci daanu ko euh, jógee euh, ci fond Covid 19 bi eurobond bi coow li nga xam ne itam indi ci les précisions du ministre Mabouba Diagne indi nañ ko si wàllu wu ni mel mbokk ci spectateurs yi waaye itam coowal Ahmed Ndoye ak ki nga xam que modi euh, nit daf euh, seenug euh, congu loolu lépp yaatal nañ ko si nu mu gën a yaatoo di leen jaajëfal bu baax a baax animation ak suñu programme alors desi leen ak ñun bu leen bouger le programme day dal continuer dans quelques instants di ngeen am une toute nouvelle émission hein, euh, face à la corruption de Sénégal 5 TV alors tay ñu ci dal di dalal ki nga xam nekk le juriste wala comme le greffier. Euh, Abdoulaye Moup ak mom té ndal di ñëw si euh, li actualité surtout justice euh, c'est important Nous Sonko Mame rebondissement yi ma xam amat amaat et tant d'autres donc ma des leen ak yeen légui sera en direct sur les antennes de Sénégal 5 TV mais aussi ñen daal si sénégal bonne soirée à tous et à tous CEFAS, le centre de formation africain du Sénégal. École, alternance, école-entreprise, stage professionnel. Reconnu par l'État du Sénégal et le Centre international privé européen des études professionnelles, CIPEP e des écoles internationales. Le premier centre de formation privé au Sénégal. Une école d'excellence et de référence composée de deux départements. Un département des sciences de la santé et un département de management et technique. Nos filières en santé, infirmiers d'État, sage-femme d'État, assistant infirmiers d'État, analyse biologique, délégué médical, vendeur en pharmacie, secrétaire secrétariat médical, biologie médicale, aide soignant, Nos filières en management, transport et logistique, commerce international, transit douane, gestion des ressources humaines, comptabilité et gestion, secrétariat bureautique, hôtellerie et restauration, marketing et communication, informatique de gestion, gestion des entreprises, banque, finance, assurance, journalisme et communication, qualité, hygiène, sécurité et environnement, marketing digital et nos filières en technique, génie civil, génie informatique, génie